jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba happy birthday dundal dundal lu yàgg mbokku taalibe yi pour rek di leen yëgal benn ci taalibe yi ndeysaan bu Cheikh Ahmadou Bamba nekk un conférencier di wuyoo ci tuuru bi nga xamante ne tuuru bu sell ba tuuru bu tedd ba di Fallou Guèye dëkk fule ca Dakar juddu le 10 avril 2001 di taalibe Serigne Fallou Mbacké bu ñu nee Serigne Fallou Mbacké suñu xel dem ci ki nga xamante ne kooku di xaritu la jeunesse kooku bëgg xale yi di Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla soxna May Mbacké ibnu Serigne Moustapha fiitu ibnu maam cheikh anta borom ngawaan mbokku taalibe yi ak fi fa leen mënta nekk ngir yàlla ak yonent bi nañ ko waajal ngir cheikh ahmadou bamba le 10 avril lay doon incha allah kooku di Fallou Gueye dëkk la ci dakaar nekk ngan di conférencier di leen naan rek incha allah di leen jox arrivée bu soobee yàlla tamit le 10 avril